de notre pays. Le gouvernement travaille d'arrache-pied à mettre en œuvre des politiques publiques adéquates pour donner du travail aux jeunes ici au Sénégal et les invités à la reconstruction de notre pays. Il y va de notre responsabilité à tous. Je voudrais aussi appeler les familles à mettre moins de pression à ces jeunes. La pression positive se comprend de la part des parents sur les moins jeunes et sur les jeunes. Mais la pression ne doit pas aller au-delà de la motivation à travailler, à se serrer la ceinture et à y croire et à, à avoir de l'endurance dans les difficultés, mais ici au Sénégal. Elle ne doit pas aboutir à faire prendre le risque suicidaire d'emprunter les vagues. Il n'y a que la mort qui s'offre comme alternative quand on prend un voyage aussi périlleux. Le gouvernement continuera à mettre tout en œuvre pour dérouler les politiques qui permettent aux jeunes de travailler. Mais encore faudrait-il que l'ensemble de ces jeunes comprennent qu'il n'y a pas de saut métier. Les métiers que beaucoup d'entre eux exercent ici sont les mêmes qu'ils cherchent à exercer ailleurs ou même des métiers moins valorisés. S'il ne s'agissait que de jeunes qui n'ont pas de travail, encore on pourrait dire c'est le chômage et c'est l'envie de se réaliser. On comprend leur désarroi. Mais il y en a qui ont du travail et qui veulent malgré tout arrêter de travailler et qui prennent les vagues. Cela ne peut être une option. Je voudrais aussi appeler à la solidarité des populations. Dans les prochains jours, le gouvernement mettra en place un numéro vert parce qu'il ne peut pas y avoir de départ dans les conditions où les gens empruntent la mer sans qu'il n'y en ait qui, en sache quelque chose. Mais ils doivent pas se taire parce que quand ils se taisent, c'est des centaines de jeunes qui perdent la vie. Et c'est ces jeunes-là qui doivent reconstruire le pays. C'est ces constituent l'espoir. Donc, les forces de l'ordre font un ils vont encore l'intensifier. Mais il faut que les populations, quand ce numéro vert-là sera mis en place incessamment, qu'ils se mettent à dénoncer les filières de migration et à dénoncer tous ceux qui sont en train de convoyer des jeunes vers les vagues de la mort. À défaut, il sera extrêmement difficile de combattre ce phénomène. Il faut que les jeunes et les populations comprennent que la situation qui a fait prendre ces la, la mère à ces jeunes pendant des années ne peut être résolue du jour au lendemain. Il faut du temps pour que les solutions qui sont mises en place opèrent et que les conséquences positives se fassent ressentir. Entre-temps, il nous faut prendre notre destin en main en tant que Sénégalais ici au Sénégal et ne pas fuir les difficultés et les défis qui s'imposent au peuple sénégalais, jeunes, vieux, hommes et femmes qui doivent relever ces défis-là. Voilà ce que je voulais dire en présentant à nouveau toute ma compassion et la solidarité du gouvernement à l'ensemble du peuple sénégalais, mais aussi à l'ensemble des familles éplorées dans cette tragédie. maa ngi taxaw fii ci Mbour ci plage bi ak tiis ak naqar gu mag gu amul fu ñu ko mën a xayma li xew fii musiba la te musiba mënu ko weesu ndax bu ñu waxee ne am na gaal gu am lu mat juróom-ñett fukki nit ñu ñu génnee ci ñeent kese ñoo xamante ne ñu ngi dund boobu ba tey ñu ropp ci lu mat fanweer ak juróom-ñaar ñeneen gisuñu ko jéeye ci réew musiba mënul weesu lool. ñii def lii nag di jël ndaw ñi ci seen naqar ak seen ñàkk liggéey gi ñu nekkee ñenn ñi sax am fi liggéey waaye ñu di leen gëm lool ne feneen moo gën. ba tax ñuy jël alal guñ ciy dàq rek tax ñu jël ndaw ñooñu di leen yóbbu ci naan di leen di yóbbu ci géej gi pour yi bu leen Espagne wala feneen ñooñu gouvernement bi dina leen dina ko jëflanteeg ñoom ba mu mat sëkk. te dinañ taral daan yi te dinañ leen rëbb ba fépp fu ñu mënte nag ñu fekk leen fa ndax lii mënta wéy kon li xew métti na métti na ci njaboot gi ñàkk seeni njaboot waaye mett seeni doom waaye métti na tamit ci askanu Sénégal yépp ndax lii di xew ndaw ñi di mbab ñoom ñëpp di dem bitim réew réew yooyu ñu dem il faut ñu xam ne que ay malaaka tabaxuñ ko ay jinne tabaxuñ ko ay doomu aadama yi nekkoon ci jafe-jafe gëm na seen réew dafa waroon soppeeku ñu toog di ko liggéey rekk ko liggéey bi mu mel noonu ba ñoom ñu bëgg faa dem ci condition yi ñu fa bëgg demee. gouvernement bi yàggul dara boole na gendarmerie ak police armée sax boole nañ ko ci. lu ëpp weer ñu ngi doon dàqante di patrouiller ci plage ba tere nañu lu mat juróom benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ñoo xamante ne dañu doon waaj dem ñu téye leen kon gannaaw solution yooyu ngi ñuy ut pour tere nit ñuy dem ñu ngi tamit uti pexe pour jox ndaw ñi liggéey waaye dëgg gi tamit mooy du ñuy dem ñëpp amul liggéey am na ñoo xamante ne am na ci luñ jàpp waaye xëy na dañoo bëgg lu gën a bari ba tax ñuy jël risque yi. ñu bëggoon leen wax ne àdduna dara xëyul sotti te njaboot yi nga xamante ne ñooy teg pression seeni doom nañu xam ne que pression sa njaboot lu baax la ci waajur bu koy teg ci njabootam waaye na doon pression positive maanaam di ko ñaax mu gën a góorgóorlu mu gën a am jom waaye jom ju ko toog loo fii muy liggéey li ko yàlla wërsëgale mu téye ci loolu pas teg ko pression ba moom dootul xëjati senegal ba dem wala dee wala des fii gën nekk ñaari alternative yi mu am loolu mënti doon pexe kon na Sénégalais yépp xam ne lii xew fii solution yu gouvernement bi ñëw doori egsi di mettre en place mënul xëy rek ñëpp amandoo liggéey ci ndànk ndank la ñuy saafara problème yi ñu fi fekk ba ku ne xam na Sénégal ñu ngi koy liggéey te ku ne jàpp xam war a jàpp na tamit sa loxo dañ ko ci war a dugal kon dina am idiir ndax lépp xëyul sotti te ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi gis ay nit ñuy waajal a dem ñu ko yeggee nañu xam ne seen responsabilité la parce que dafa mel ne rek nga gis nit muy dem di xaru ji doo ko seetaan da ngay def lépp pour mu bañ xaru wala pour mu bañ sotti nañ ko jàppaleen ko balaa muy dee ngay dégg. jàppaleen ko balaa muy dee googu nag jàppaleen ko balaa muy jël géej ci day mën ko ko fekk ci la bokk moo tax fan yii di ñëw ci lu gën a gaaw sax gouvernement bi dina teg numéro vert maanaam fenn foo xamante ne ku fa nekk mën na faa woote te bu ko jaree sax dinañ ci teg ay neexal pour ñi nga xamante ne ñooy yoole ñu bëgg a dem dinañ sowee bàkkan waaye dinañ am tamit nañu ñu leen neexalee ndax ñu mën a xam ne lii ñu nekkee di ko xeex gouvernement bi kese doyu ci ndax gouvernement bi mënul nekk ci plage bu ne waaye ku ne ci plage yor fa sa téléphone gis ay nit ñu dem xamal na jéego gu toll nii war na ci mën a am kon sa responsabilité en tant que jullit mooy ku gëm nga war a mën a tere nit ñi jël risque bu toll nii lu xew nii ñu ne 80 personnes ñoo ci nekkoon te 4 rek ñoo ci respect rescapé kon daanaka lu mat juróom juróom-ñaar fukk ak lu teg ñàkk na fi seen bakkan. te lii bu muy xew ba tey 2007 ba tey ba 2024 bii ñu nekk nii léegi mu ëpp ñaar fukki at ñi ci ñàkk seen bakkan bëri na lool te ay ndaw la ñu ñoom ñoo war a tabax réew mi kon responsabilité collective bi ak solidarité bi entre ci biir Sénégalais yi na ko ñëpp na ku ne jàpp na responsabilité boobu nu mu galloo ci loosu gouvernement bi noonu la galloo ci sa loos te nga jouer sa partition loolu mooy tax en attendant que solution yi ñuy mettre en œuvre maanaam pexe yu ñuy nas wane résultat yi ñuy xaar ku ci ne nekk un par rapport ak migration yi di xew kon lii moo nekkoon li nga xamante ne bëgg naa ko fi euh, jukki ci ay kaddu te dellowaat delluwaat masawu njaboot gi yëpp ñu ñàkk seen doom masawu askanu senegal waaye di wax ndaw ñi nañu gën a takk seen ndigg boole koog muñ te ñu booloo liggéey réew mi ñu xam ne bu yàggul bu yàgg balaa muy yàgg incha allah. dañu commencé gis résultat yi nga xamante ne ñoom lañ diglanteeg ñoom waaye réew mii kenn du jóge bitim réew di ñu ko tabaxal ni waa bitim réew toogee ba tabaxal tabax seen réew ba mu mel ni suñu ni tax suñu doom yi di jël risque dee pour dem fa noonu la ñu war a toogee fii gëm ne réew mi fii lay changé bu amee lu ci doxul ñun ñëpp ko war a jubbanti ndax ku ne am nga fi responsabilité te fii la ñu yàlla tanal salaamaaleykum wa rahmatullah